mbokki Leewtoo ñu ngi leen nuyuwaat baax fi ñu leen daan tey ñu ngi ci Adrien Adrien Senghor tey nag xam ngeen li xew mooy lamb lay xewati un lañ fi teg Modou Diouf ànd ak Saliou Diouf doomu ndeyam ñu teg ko ñoom ñaar doon nay amateur waaye bokk ci nga xam ne moom mooy moom fam la ñuy wax Amalda di association bi nga xam ne moom la du jànje ko jiite waaye section sans frappe ma ànd ak Fall ci caméra bi mais Fall tey da ngay xool oxoyla xa andona association Mbake to wela ye association association Mbake mais nu mbog no association fe Mbaka Njom waaye dubla am ngir rok gis nga Fall mu ngi noonu Malick Ngom mais Malick tey tey tey Modou Diouf ak euh, ki nga xam ne moom mooy Saliou ñoom ñoo organisé doon ay xarit ay doomu ndey. ay doomu ndey acteuru lamb parce que ñoom du benn c'est pas la première fois ñoom ñuy organiser donc bokk nañ daal ñi nga xam ne ñu ngi développé bëri simple. Mhm. waaw ñu leen di encouragé bu baax. mais tey lamb am feneen fudul fii te lamb ja am doole lool est-ce que du am impact ci mbër yi. bon boo xoolee public bi rek nga xam ne euh, lamb moo am ay jéego moo poussé ay jéego parce que leer na ma boo demee Joal lu mel nii mu nga fa lii bu nekkee fi ça veut dire lamb lañ bëgg te ñu ngi koy dund. loolu jaaxal na ma parce que turbine bi fees na te lamb te ñu bëri dañoo yaakaaroon ne lambi Joal bi mooy tax fii du fees. fi ñu toll nii heure bi jotagul te liñ bind ëpp na fanweeri mbër donc am nañ yaakaar ne aussi dina dina dina bëri trop dina bëri waaw lamb moo développé rek ñuy ñaan mu sant yàlla bu baax mu gën a jëm kanam. ok ah Malick Ngom di arbitre noonu la ñu duggee tey ci làmb yi Fall yaa ci gis sunu xarit la sunu lépp la waaye mbokki Leewtoo ñu ànd ak yéen xool la ne ci biir waxtaan ak yéen ci lamb xool champion yi. waaye itam xool Saliou Diouf ak ki nga xam ne moom mooy Modou Diouf lan la ñuy indil ñaari njuufeen yooyu man li ma ci naq rek mooy ñaari sant yi waaye nii la ñuy duggee ci làmb ji waaye mais gannaaw yaa ngi muñ de lu xew. non mais lamb yee commencé neex rek. mais tey lamb ji daf teel a saf euh, affaire yooyu de xar nga fuufa yi. waaw mais du xar yee demee noonu rek xam nga ñun moom moom lu saf rek la ñuy door grand. Saliou Diouf dama ko gis mu am lu mu yor ci loxo yi. mais Zal nag champion la yooyu affaire yu cosaan la. ñun ñoo ko baaxoo mbiru séeréer la rek. mu mel ni tey moom du universitaire bi quoi. mais amateur bi la tey amateur bi la indi. tey amateur bi carrément la indi moo tax gars yi ñëw wuyu si ko amateur yi waaw loolu moo tax lamb ji demee nii. Thiaw Sow suñu càmmoñ Pape Maroon suñu ndeyjoor attention ñaari xel yaa ngi lewatoo deuxième demi-finale deuxième demi-finale Mayo Sow Pape Maron ñaari xale yaa ngi lewoto ñaari xale yaa ngi lewoto hey Pape daan na ko kontaan rek kontaan ama lama suñu cosaan la ñun ay séeréer lañu te ñu dañu bëgg lamb man fii dama fi ñëw su ma nekkee Sénégal dimanche bu nekk fii laay nekk di seetaan lamb parce que damay fàttali sama ndaw fàttali sama aada suñu cosaan Salif sama xarit la ñoo bokk diwaan bi ñu jógee donc su woote ñun dañu war a teew fii fekkee journée bi partagé ak moom euh, jàppale ko pour mu am ñu ñëw nag ànd ak xarit yi kii Pape directeur Pape Sidi Diouf Euh, Sock ak Souleymane Diouf ñi samay xarit lañu kii invité d'honneur la comme man ñii suñu xarit la ànd ak ñun pour ñu ñëw jàppale Saliou ci bés bi gis ngeen bés bi xumb na def nañ ñu fi def cosaan ñu fi def aada ñu ngi fi def culture loolu dafa am solo vraiment ñu ngi encouragé Saliou di ko féliciter parce que ku gis ambiance bi nu mel nga xam ne lamb bi réussir na ko ñaanal yàlla lamb bi jeex ci jàmm ba pare édition yi muy bëgg a defaat aussi ñaan yàlla yàlla jàppale ko ci mu am réussite di si di nuyu waa lamb yëpp waa axlu lamb yëpp CNG ak association euh, supporters yi amateurs yi den gërëm yéen ñëpp yéen aussi ci liggéey bu rafet bi ngeen def parce que ngeen fi nekkuloon lamb bi euh, dina sooxe mais ñu bari lu dañuy nekk ba Europe fenn di seetaan làmb ndax télé yi ak site internet yi ñu leen di encouragé di leen jaajëfal ngeen gën a yokk pour lamb gën a jëm kanam parce que làmb rek nag mooy suñu aada sport ñu am Sénégal yëpp làmb kese moo ci sport boo xamante ne suñu aada la suñu cosaan la donc dañ ko war a jàppale mu gën a gën ko suuxali parce xale yu bëri dañ ci nekk di ci daan seen doole di seen wax seen ak donc euh, ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax jërëjëf. nañu. maa ngi lay jëy. waa Saliou nga tëgg tey lamb ji mu fees dell nga tuddee ko sa doomu yi wuy si mbër yi wuy si ana nga mën a wax mbokki Sénégal ñi lay seetaan. Euh, maa ngi gërëm euh, Sénégal yëpp di gërëm képp kuy ñu fi teew yëpp ak ñu fi teewul euh, may gërëm nag sama Tamsir Faye ak Pape Sidi Diouf ñu ñëw vraiment ma kontaan bi gis nga nu mu feesee. loolu du sama coobare coobare yàlla la di gërëm amateur yëpp di gërëm seen télé mu fu ngeen bugg a egg ngeen egg ma ànd sama doomu ndey euh, Mamadou Diouf ñu teg lamb bi vraiment ma kontaan ci di leen gërëm yéen yëpp ma may ko mu sànni ci kàddu. waaw Mamadou Diouf ana lan nga yëg organiser lamb ji fees tel si nga ànd ak ndey. mais kontaan rek kontaan rek sama xarit kontaan bu baax a baax a baax euh, xam ne lii suñu aada la su mooy suñu cosaan franchement bu ñu organisé ñëw ba heure bii dafa am nag lu ñuy yëg euh, lamb ju mel nii doo gis xeer du jóg yet du jëkk loolu ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax. parce que dafa a séeréer la. Eh, di remercier nag amateurs yi ñëpp di remercier. jaaka jàpp na ko mën a jël fay xam ne aussi nit bu baax. kañ la Caaka Faye. oui. nga bëre jël ko ci kaw Pape Maroon waaye jël bi jotuloon yomb nag. waa lambul la rek du question mon leen te di woon suma arsek rek may ñaan yàlla ren gën a neex quoi waaw. waaw. mais ni nga wax fan si yow nga ñëw xawoon fekk ñëw jël ko. waaw lambul la rek te di woon suma arsek ma leen di talal loxo bu ma si taal loxo ñu may ñaanal. di sakku ñu ma rek saison bi neex ku waa te jig ñu waaw alay ko fogole seere it ma den rek heɗa den tabatana mo ñaan combat ke ngaroyo encore i eh. o fogole yet cungang den jom na xaw te caaga bu ndig maaf re fulaan jom a xaw waaw bu ndig koy gijaye maafir jom a xaw waaw waaw mais adversaire ke yo mais de toute façon maxey xeɗa roog combat ke ngaroyo i eh. jaajëf. mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu Moussa Fall moo ne ci caméra bi tey ñu ñëwoon fii ci arène Adrien Senghor Caaka Faye bëreeg ay moromam ay nattangoom xëy na yàlla dogal tey may ko ndam ñu ngi koy féliciter waaye di encourager Pape Maroon ak mboolem mbër yi nga xam ne dañoo daanu ñu xam ne lamb da daan wala ñu daan la kon. mbokki Leewtoo Moussa Fall moo ne ci caméra bi nuyu na ñëpp de ñu kenn di leen jaajëfal ba beneen incha allah jërë ngeen jëf.